سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kon mbokk yi noo ngi tollu woon ci jeexantaluk atte googee nga xam ni moo daaneeloon moo jeexaloon guerre ba muy attek atteb mm, Abu Muusa al Ashari ak Amr ibn al-As te ñu waxante la ñu waxante te la ca xew-xew ca bi ñu dellusee ci Alioune ba xibaar ko ko ana nu situation ali deme ak waa këram muy ñi ñu tudde ay xawaarij te ñu toppan ci ginaaw Aliou te ginaaw bi ñu weddi ko ba weddi googu moo dox ba ñu rey xalifa bi Seydina Ali radiyallahu anhu kon mbirum xawaari ji bi aliyun yabalee abu muusa al ashari ngir atte ngir atte boobu ñu waxante xawaari ji dañ ko gën a dañoo gën a taral seenu weddi ko te te kat fekk ne dañu mel nu ko xër ci moom lool ci njëlbeen wedd nañ ko nag ba àgg ci sax ni ab yéefar la ibnu xaldoon mi ngi wax ni ku ñu wax zuraa ibnul burdi at-taa'i ak xorquus ibnu zuhayr as-saadi dañoo ñëw ci moom ni ko tuubal ñaawteef bii nga def te bàyyi àttewu gii ngay àttewu te génn ñu dellu ca suñ noonu yee xeex ak xeexe ak ñoom aliyu ne leen dañoo bindante ab dañoo dañoo bindante siñante ba noppi coloré kuy seq ak ñun bindante nañ ak ñoom séq ak ñoom kóllëre gu ñu wax ak ñoom xorxoos ni ko loolu yi ngeen def bàkkaar la da ko war a tuub Ali ni ko du bàkkaar waaye lott la ci xalaat ñu daal di jógee fa moom nag tàmbalee woote di wax ni laa xukma illa lillah ba benn bés Seydina Aliyun di xutba ñoom ñëpp ci jàkk jàkk jëpp di riir ñu maase di wax baat boobu laa xukma illa lillah ngir jublu ko wet rek foofa Ali ne allahu akbar baatub dëgg la de waaye jubluwuñ ci dëgg ñoom ay caaxaan lañ ci jublu kalimatu xaqin urida biha baatil mu xutbaate yoonu ñaareel ñu waxaati loole ñu waxoon ba mujj ga mu ni leen li ma warloo ak de mooy duma leen tere jàkk ci li fekk yéen a ngi ànd ak noonu seenub cër ci alal ji duma leen ko tere li fekk yéen a ngi fi li ma warlu yéen mooy du xeex ak yéen mukk te du yéen a jëkke xeex bi bu boobaa nag nu xool nu nuy def ak yéen benn bis ginnaaw loolu nag la Seydina Aliyun xutba wax ak nit ñi waxtaan ak nit ñi wax li ñaari àttekat yi def lañu àtte it mu dàq ko yedd leen ca it daldi nit ñi leen nag jóg leen ñu dem saam jihaati ak ñoom daal leen di jàppal bisu altine bo altine ñu war a génn ñu ñépp mu yable ci ibnu abbas ma ko nekkaloon basra ngir mu waajal ger boobu mu dajale nit ñi ngir ñu dem saam ngir xeexee ak ñoom mu bind bataaxel xawaarij yi xamal leen di leen li ñaari àttekat yi àtte woon dëkkooruñu ci dañu ko del lu ñu delloo la dogu na it nag ci dem saam ngir woo leen ci ak ànd ak jaayante ak dajale mbooloom jullit bi daal di wax xawaari ji leen ngeen ñëw ànd seeg man ngir xeexee ak ñoom waaye ñu bind ko bataaxal ni ko yow meraloo yàlla sa bopp ngay meral bu fekkee seere nga ci sa bopp ni yéefat nga ab yéefar nga nangu nga kéefar gi nangoo tuub kon danañ xool suñu diggante yow bu dul lool ba ñun ci dara génn nañ ci yow ba mu jàngee bi Seydina Ali ñu jàngee seen bataaxee boobu nag dafa daal di naagu nag nit ñi moom kon duñu dëpp duñu duñu dëppati léegi daal di dogu moom ci dem saam génne fa dem ca béréb ba ñuy wax ak nu xëy la ak mbooloo mu bare bare bari moo xam dinañu mat juróom benn fukki junni nit ak juróom ibnu abbas yónnee ku lu mat ñetti junni nit ak ñaar téeméeri gawar ci waa basra ali un jóg waxtaan ak nit ñi soññ leen ci jihaad ak muñ ci buñ dajee ak seen noonu yooyu yéen nag dogu na ci dem saam waaye bi mu nekkee ci loolu yi dégg ñu ne ko xawaari ji kat ñu ngi ëppal ñu ngi yàq ñu ngi dogale nit ñi di nangu seeni alal ñu ngi tuur deret nit ñi bokk na ci ñi ñu jot a rey Abdullahi mi nekk doomu xabaab mu nekkoon bokk ci saxaaba yonent bi chanson Abdullahi ibnu xabaab ñu rey ko dañ koo jàpp moo ko soxnaam ñu ànd te booba soxna si dafa ëmb ñu ñu ko yowee kan mun leen mën a Abdullahi ibnu xabaab ànd ndob yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen dee de tiitloo ngeen ñu ni ko amul solo léegi nettali nu loo dégg ci sa baay mu dégg ko ci yonent bi ñu ni ko mun leen dégg naa sama baay muy wax ni dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ni fitna dana xew te kanam joo xam ne day aji toog ji moo ci gën taxaw taxaw ci gën kay dox kay dox ci gën kay daw mu ngi ne loolu mu ngi nekk ci leen loolu dégg naa ko ci sama baay mu wax ko ñu laaj ko mbirum Abu Bakar ak Omar ak Ousmaan ak Ali ku ci ne mu wax ca aw yiw ñu ni ko yow ci ñi topp nit ñi ci toppe nit ñi seeni tur nga xam ne ngay dégg ñu ne diw rek nga di ko réer ci nga bokk yow nekkoo ci dëgg daal di koy rendi rendi jabaram butti biiru jabar ja rey ñetti jigéen ñu bokkoon ci gërub tay loolu nag bi ko Seydina Aliyun déggee mu naqari ko lool mu yónni ci ñoom benn waay ngir mu xool ba xam lii ñu ko wax nu mu demee ñu rey waa jooje mu yónni nit ñi nag tiit ni waaw buñ fi bàyyee ñii dem saam bàyyi li nag suñ njaboot gi mbaa duñ def lu mel ni ci suñ njaboot gi daal di ñoom ñëpp ñu maase ñu Seydina Aliyun li gën mooy nga jëkke leen di jënd seen biir ba noppi boo noppee ci ñoom nag doog a wéyal jëm gi nga jëmoon saam Aliyun dëppook ñoom ci loolu daal di dox jëm ci ñoom ci biir bu ñuy wax ak Nahrawaan Nahrawaan lañ nekkoon yabal fa ci ñoom ku leen wax ni leen jox leen nu ñi suñ mbokk yi nu bàyyi leen ñu ne ko nu ñëpp ko rey nun ñëpp daganal nañ seeni deret ak seeni deret yéen deret ñi ñu rey ak seeni deret yéen dafa dagan ci nun bu ngeen defay nun ñëpp ngeen yu ñun waaye ñun ñëpp ko rey ali ñëw ba jege leen waar leen ragal tiitloo leen waaye tontuwuñu lu dul ne bu leen ton bu leen wàqante ñoom bu leen leen tontu waaj leen rekk ngir daje ak seen borom ñoom li ñuy nekk nekk ci ay caaxaan dañoo dëgëroon jàpp ni ñoom ku ci faatu rek aljana ngay def direct daal di ñëw sàppe fas yéene xeex aliyun digal abu ayub al ansaar yi mu yëkkatil xawaarij yi raayab kóolute sécurité ni leen raayab bii de ku ñëw ku ci ñëw rek am nga sécurité bàyyi nañ la ku dëpp dem koo fa it am jàmm ñu ñu bàyyi la ndax soxla wuñu leen amuñ benn aaju ci yéen budul ñi rey suñ mbokk yi ngeen joxoon ko ñu rey ko ba biñ waxee loolu mbooloo daal di dëpp bàyyi xeex bi ñuy ñëw ci raaya bi ñee dem koo fa dëpp ñu wax nañ ni junni junni nit ñoo fa am ñu ni junneeg ñeent téeméer am ko yóbbu ba ñeent junni waaye ñoom ñëpp nag ñu maasee rek riitandoo wut si àll yi Ali yun wax ay àndandoom ni leen fegu leen leen téy leen seen bopp ci ñoom ba te ndare bu di ñu jëkki ger bi ñoom waaye ñu ñëw rek songu leen ak doole di wax laa ko hukma ay lillaah aywa gontu dem aljanna ar rawaax ar rawaax ilal janna daal di ñëw rek daal ci kaw Seydina Aliyun ak mbooloo ñu ak doole ah, léegi Aliyun ak ñi àndal bi taxe amul ñu jóg ñoom itam buur dal kaw sànni leen ay fet caw leen ay jaas yi ba ñoom ñëpp wenn waxtu ci lañ leen alak ku mel dañ leen di rek Seydina Ali ñàkkul ci mbooloo mi ànd la lu tollu ci ay juróom-ñaari nit man li mu daal di laxas ba mu bëggee jàll saam nit ñi jàmbat ko ni ko nag li ñu yoroon ci fet ak xeet dafa jeex te sonn nañu li mu bëggoon mooy delluwaat koo fa ngir waajal ko benn yoon waaj waajtaay wu yees ndax ci lañu gën a mën a amee kàttan ci xeex waaye Ali yu ànd ak ñoom ci loolu daal di wàcc ni leen bu kenn dugg sa kër ndare bu dañoo dellu ba xeex dañoo dem ba sàmm ba xeex yi ak noonu yi mu taxam jóg ba noppi waaye fa nu wàcc fa ñu wàccoon rek ñoom noonu lañ doon rocc ko ci guddi gi di dellu seeni kër bàyyi armo bi mu wéet ñu jekk ci gis mu wéet lool ndax mbooloo bari dañoo rocc ko dellu aajo bi mu gisee lool nag la dugg si saa koo fa woo leen waxtaan ñoom waaye ñun ñëpp ñu lànk rek kon daanaka dem gi aliin waajaloon yoonu ñaareel ngir bëggoon dem saam far xawaari jooyu gàllankoor ko bañ yam ci ñoom ba tey loolu moo dogalewaat rek demu Seydina Aliyu gi ca saam noonu kon Misra ak Basra ñaari dëkk yooyu lu fa xew léegi ca Misra fitna ja daal dafay jàq ko moom itam ndax Muhammad ibn Abi Bakar la fa Aliyu tegoon waaye Muawiya ginnaaw bu ñëwee ni ko yaay xalifa bi mu ngi tàmbali moom itam di lijjanti yónnee Misra yónnee fa sax Amru ibn Aas la fa yebal boole ko juróom benn junni nit ngir mu foqar ji ci foqar ci Misra ci loxo yi Muhammad ibn Abi Bakar jàpp na ne bu ci jotee dana ko gën a mën a dimbali ci li muy lijjanti ci xilaafa gi ci alal alal yam fay jëlee yu mel noonu نون لا معاويه يبالي حمر بن الحاس مو عندك جروم بن جوني نيت لغي محمد ابن ابي بكر بام ديغي لولو خامني يت لولو دو مانا جال بام شاكي تخيب تا جالوت كم يبالون مولاي اك نيونيا ني راي كو دا فا دال داو موم ديم لاقوتو جي موم موم موم محمد ابن ابي بكر waye ñu dakk ko ba japp ko ñu wël ko ba japp ko dugal ko ci biirub ambaam lakk ko noonu lañ doxee ak moom Ali bi mu déggee loolu tiit tiitaange ju tar loolu métti ci moom lool mu waxtaan ak nit ñi woo leen ci bëgg ñu ànd ak moom dem xeexee ak noonam yooyu waaye rek ñu gàntal kenn topp ko Ibnu Abbas Abdullah Ibnu Abbas moo nekkoon ca Basra nekk fa waali ci atum ñeent fukk la tàggoo ak aliyun dem màkk la ko waral mooy ibnu abbas dafa romb abul aswad yedd ko ci mbir mu mu xewoon abul aswad bind bataaxel ali jaxase ko moom ni ko ibnu abbas alal ji mu yor fii ci basa nu ko neex li ci doxe aliyun bind ibnu abbas lettre di ko laaj loolu ibnu abbas tontu ko ni ko liñ la wax dara du ci dëgg alal ji lépp takk naa ko sàmm ko te ko ci aw bi bindaat ko bataaxal ni ko léegi dama bëgg nga leeral ma li nga ci jël ak foo ko jële ak loo ci def ak noo ko defe ak lu ci des audit boobu nag naqari Ibn baas mu ne ko ni ma la gisee li ñu la wax ci man jàpp nga ko ci ni damaa jël alal poste bii nga ma joxoon nag seetlu ku la neex nga def ko fi man maa ngi dem moom la demee màkk ci riwaaya sax ñu nett ala jëla jël yóbbu ko Makka waaye loolu allahu alam waaye ku daal daal loolu moom audit boobu bokk na ci li ko merloo ba tax mu bàyyi Ali dem Makka toog fa doon ab jàngalekat rayuk Seydina Ali li sabab ray gi nag dañoo wax ne Abdurahman ibnu Muljam ak ku ñu wax Alburak ibnu Abdillah at Tamimi ak Amr ibn Bakr ak Tamimi ñett ñooñu dañoo daje fàttaliku seen mbokk ya ñu reyoon ci waa ca Nahrawaan daldi leen di sàkku yërmande daal ni waaw lu nu fiy def seen gannaaw bu nu mënoon a jaay suñu bakkan yii ñett ñu réer ñii ñett ñii fi indi réer gi muy Aliyun ak Muawiya ak Amr ibn Hasan ñu rey leen kon dana ñu noppal nit ñi ci seen mbir te sun mbokk yañu raayoon ci naxarawaani sun deret seeni deret dinañ ko fayu Abdurahmaan ibnu Muljam ibnu Muljam fekk ne mu am jigéen ju mu jësoon ci bani tamim ñu di ko wax xataami mu am ci moom ak coxeel lool bëgg ko labat ko jigéen ja ne ko danga ma mën a takk waaye ci ñetti sart ci sartu ñetti junni dërëm nga ma jox ak réellement Aliou bu mu joxee ñetti junni rey Aliou daal loolu mooy can gi te jigéen jooju it daa bokkoon ci xawaari ji wax nañu baayam ak mbokkam yépp dañu leen reyoon ca bisub naarawaan Abdourahman ibnu Muljam ñaar yooyu bi mu dëppoo fekk na mu doon bëgg jigéen ji mu sartal ko lii mu wax ak ñe moo tax mun leen man maa leen di reyal Ali maay féetewoo Ali kañ wax Alburak ni leen man maa féetewoo Muawiya kañ wax Amr ibnu Bakr at-Tamimi yi ni man maa féetewoo rey Amr ibnu Xaas noonu la ñu waxante jàpp lañ jàpp fasante ko ibnu mu jëm dem guddig aljumaa ci jàkka ja fanaan fa jaakaarloo ak fii Sayyidna Ali jun di jaar di génn ngir julli si bunt bi muy jaare ngir julli si mu jàpp foofu jàkkaarloo foofu bi Ali yun génne di woote ne ay julli julli julli ibnu muljam daldi koy caw jaasi ci jëba nit ñëpp yooxu daat koy caw nit ñi yooxu mu daal di daw ñu dàq ko ba benn waay bu bokk ci waa xadra mawta moo ko jàpp nit ñëpp ñu yeew ko ba mu dëgër ali yun wóotal ñuy wax jaada ibnu ubayra doomu mbokkam mu jigéen mu ummu haani la ab jarbaatam la moom la jiital mu julli mu jiite mbooloo mi julli aadi yónni leen bu ma dee na ko rey moom képp comme ni ma rey bu fekkee nag dundaat naa danaa xam ni may doxee moom wax nañu ni foofu Jundub nu Abdillah laaj na ko ni ko ndax bu nu la ñàkkee asan la nuy jaayanteel Ali ni ko duma leen ko digal duma leen ko tere loolu moom yéenay seet rek seen mbir la noonu moo woo ak Xuseynu dénk leen ni leen maa ngi leen di dénk ragal yàlla bu leen bëgg sàkku àdduna ak donte àdduna sàkku na leen yeen bu leen naqar lu dara lu leen raw ci àdduna dee leen wax dëgg te yërëm jërëm yi tey dimbule ku tumuranke di jàppale ku ñu tooñ di jàppale ku ñu tooñ te ka tooñ ngeen weddi ko ku mën a doon bu leen ànd moom na ngeen jëfe li nekk ci alxuraan te mbirum yàlla bu leen ci kenn mën a xoqutal bu leen kenn mën a yedd ci loo xam ne lu neex lu ngeen xool ba mu neex yàlla ngeen di ko def daal di Muhammad ibnu Hanif ibnu Hanif Hanafiya ni ko yow itam dénk naa la loolu yi ma leen dénk malay lay dénk it nga wekk sa ñaari kilifa yi ndax àq ji ñu am ci yow ne ko bul def mukk dara te tàggu woo leen yëgaloo leen ko ñoom itam mu dénk leen doomam jooju muy Muhammad ibnu Hanafiya daal di delloowaat ndénkaat bi ci Xasan gën ko dolli dénk bi demee bay faatu nag la bind ndénkaanam bi nga xam muy ndénkaan جن دال نيب بوك دال لي كنت ندي واخ لا اله الا الله ب نيروغي رتشكو فرضي الله عنه نون لا ابن ملجم دوخي اك سيدنا علي كني واخ البرك موم da fa tëru muawiya ci guddi gi ba mu génn di julli si mu caw ko jaasi ci ay toggukaayam njëkkikaay waaye ñu yóbbu ko amr ibnu bakr moom itam dafa jekki tëru amr ibnul aas ci guddi googee waaye amru génnul dafa am dafa xawoon a wéradi digal njiitul police yi ku ñu wax xaarija ibnu abi habiba ibnu amir ibnu luay mu nit ñi noonu amr ibnu bakr di koy daal dal ci kaw ba rey ko caw ko rey ko waaye ba mu koy reyit mi ngi jàpp rek ni Amru bu al-Aas la rey bi ñu ko jàppee ba yóbbu ko ci Amru ibn al-Aas mu gis Amru ibn al-Aas ne waaw man kon ku rey ñu ne ko xaari jàngare mu wax Amru ibn al-Aas ne ko wallahi jot feewuma ko woon kenn ku dul yow Amru ne ko waaw Amru nga soxla woon waaye yàlla xaari ja la reylu daal di joxe ndigal ñu rey ko kon loolu mooy mujjug mbirum xawaarij yi ak sayidna aliyun ak muawiya ak amr ibn al kon ci bis yi nu jëm dinañ ci def waxtaan ci xawaarij yi waxtaan wu beru jàngat yit li ñu déggee ci eh, xilaaf ak amirul ali ngir nit ñi gën cee mën a jariñu di ñaan yàlla mu defal nu ak dégg ak topp asalaamu aleykum wa taala wa